awuju billah bismillah inna waliya allah wa ma tawfiq illa billah barke borom tubaab barke xasida wa kaana xaqan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki taalibe yi mbokki àdduna bi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaare te di jox ku nekk wàccuwaayam macha allah tey nag ñu teewee fi bis boo xam ne bu am am solo la muy bis bi nga xam ne sëñ Touba macha allah moom la ñuy defal màggal goo xam ne dafa ñëw dañ leen santale leen ma seen borom macha allah muy bis boo xam ne nag bis bu neex la tamit te nit ñi nag ñu ngi wuy si bu baax a baax di ko santale boromam ku xool àdduna bi tey ku xool Touba rek xam ne waa àdduna bi yëpp ñoo fi dajee kon loolu rek ak cantaar Serigne tuubaa la boo gisee nit ñi sax di jàmbat coono sax mënatuñ koo jàmbat ndax lan Serigne Touba li mu dajal rek dajal rek moo tax kenn du si jàmbat coono ak lu mu tàng tàng rek macha allah da ngay gis ni dañuy dem ba jeex tàkk tey nag waa seen mbokk taalibe soxna maam say Diop nag wakaana xaqan moo ñëw fii taxaw ci bërëb bi nga xam ni mooy buntu waañu daayira wakaana xaqan alay naa nasrul muminina si jiitu sëñ Ibrahima Diouf moom nag dafay ñëw rek présenté wu di leen wan li nga xam ne ci waañ wi. Ah, macha allah ñoo ngi nii toog kenn ci jëwriñu waañ bi ñu soxna Fall. doon koo xam ne nag jàmbaar la ci waañ bi ndax yàgg nañ koo gis si waañ wi du ren du daaw année yi yëpp dañ koy gis si waañ wi muy ñëw di teewal fii waa Wakana Haqqan ñëw di fi liggéey nag liggéey bu am solo ndax li ñuy wax rek benn jaamu yàlla gën kawe ngay togg di jox nit ñi ñuy lekk loolu jaamu yàlla gënu koo kawe moom kon am na benn bëgg-bëgg boo xam ne nekk na ci moom ba tax muy ñëw ci waañ bi ndax am na xidma bu nekk ca jumaa ja waaye moom dafa bàyyi xidma bi ñëw di togg ci waañ bi loolu nag lañ lay laaj soxna Ndeye Fatou ndax année bu nekk rek ñu ngi ñëw di la fekk fi ñu lay laaj rek lan moo waral sa taxawaay ci waañ bi ak nan gisee waañ bi ak taxawaay jëwriñ bi tamit ak waañ bi nan lay doxee A'udzu billahi bismillah inna waliyallah wa ma tawfiqa illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakan ñu ngi leen di ziar bu baaxa baax. Waaw ñun de suñu lepp ndigal la. Ndigal danaka lañu dikké ci wañ bi. Euh borom dogal nak <coughs> ñu jital ñu ci wañ wi ñu ci sant bu baaxa baax. Euh mu doon at mu ñu ngi ñaan sunu borom di ko yàgg fekke at yu baree bari kon di ko àndak ak waa Wakana saa su nekk ñu di ay jàmbaar yoo xamante ni dañoo naw seen jikko lool ci déggoo beeg lépp macha allah wakaana moom ku ko xam-xam ni euh, ñëpp benn lañ rawatina soxna yi dañoo déggoo lool. donte waañ wi néew nañ lool waaye tawfeex gi ñuy àndal maanaam liggéeyal Serigne Touba lu mu metti metti mbégte nga ciy àndal ak tawfeex goo xamante ni dañ koy dañ koy dund daal. sunu biir euh, te it ku ne xam na li nekk ci joxe ñam moo tax euh, saa su nekk dañ ciy gën a ànd ak tawfeex di ci gën a ànd ak mbégte di ñaan suñu borom di ñu gën a kàttanal ndax yombul waañ yombul ngay tege ay mbana di ko jox ay jaamu yàlla te it euh, daanaka ku xewluwul ngir nga am doole ngir liggéey ci jumaa ji dafa metti du lu yomb kon dañuy ñaanal waaw waañ ñuy gën a am kàttan buñ koy defee euh, ñuy sant bu baax a baax a baax bi mu ñu boolee ci ñi nga xamante ne ñuy liggéeyal Serigne Touba euh, ci ci màggal gi rawatina ci daayira wakaana xaqan dañ ciy sant bu baax a baax ak ñu koy àndal daal macha allah soxna Ndeye faatu dañ lay jaajëfal bu baax a baax ci tontu yooyu nga tontu te leer na tamit macha allah comme ni nga ko waxee rek ndigal la dañ laa jox ndigal ci waañ wi te ndigal li ñuy wax rek caabi la bu ëppee du tijjeeku waaye bu ëppee tamit du tëju macha allah macha allah nga euh, wax loo xam ne lu am am solo la ndax waañu comme li ñuy wax rek euh, euh, jumaa ja doon na loo xam ne lu metti la liggéey ba metti na fa te yéen rek yéen a mën a jàppale nit ñi nekk foofu tamit ñu am kàttanu liggéeyal borom Touba ca jumaa jooj tamit dañ la siy jaajëfal bu baax a baax di la ñaanal di leen ñaanal yéen waa waañ yëpp ci maam ku ci mel ni soxna maam jaara ku ci mel ni soxna kinne ak ñaanal bu baax a baax ak jëwriñ bi nga xam ne moo ñu jiite ñu koy ñaanal bu baax a baax muy sëñ Ibrahima yàlla may leen gën leen a may kàttan xéewal yi tamit di ci gën a nekk ndax liggéeyu waañ tamit metti na lu ndugg mi bari bari tamit du tee du ñàkk lu ci dooleeku waaye dañ leen di ñaan yàlla rek mu gën leen a kàttan gën a dolli wërsëg yi ak xéewal yi ak wér gi nga xam ne tamit moo fi bu fi nekkee chaque jour rek yàlla na lay gën a jàppale rek lépp luñ bëgg dinañ ko am dañ lay jaajëfal ci taxawaay bi ak pasteef bi ak bëgg-bëgg bi nga xam ne mi ngi fi rek leen ñaanal yéen Ya lo entiendo.